salaam bikum waa PDS yi kan lañ nar a jàppale ci wote yi moom la ñëpp di laaj le quotidien yi ne kaay ne laaj boobu nag xamagu tontu de ndax Karim Wade fa wax militant yëpp ne nañ déglu saa baay Ablaye Wade kum ñu wax ñu ànd ak rek moom la ñu jàppale ci wote yi l'éveil yéen kaay ne électorat bu PDS bi fa sakkan de lu ëpp cinq cent mille voix ku jàppale nga xam dara de Walf Fadjri yéen kaay ne Karim Wade nag fa xam ñu koy poussé ngir mu jàppale Amadou Ba Vox Populi ne a jafe-jafe a kaay ne man dafaa yaakaar ne fa ñoo nar a tasaaroo ah, yaw seetal mm. am na ay responsable PDS yoo xam ne ñoom fa ñoo wax ne ñun waa PDS yi fa ñoo war a boycotté maanaam toog ñàkk jàppale kenn am na yeneen responsable yu PDS yoo xam ne dem nañ fekk ci jomaay président moom la ñuy jàppale am na ñuy négocier ak waa PDS yi ngir ñu jàppale Amadou Ba direct news kaay na ko voilà Amadou Ba moom ngay wax nag démb fa wàccee ñooro lay laay la laaw mbooloo mu bëri bay tuuru ñu ne déetawaay mu ñëw Kaolack ndàngaan mbooloo mu bëri dalal ñaari tali su fekkee ñooro la nag Moustapha Ba jëwriñ ji dénk kopparu réew mi fa koo def dóom de mbooloo mu bëri la Moustapha Ba génnee ngir jàppale Amadou Ba fa wàcc ci terrain bi ñooro yëpp topp ko te mooy yéen a kaay ne Ba kay li ñuy wax démonstration de force doole yemut fa toj ñooro ba pare nag sàkku si ñoom ñu woteel benn bokk yaakaar directeur de campagne bu Amadou Ba moom fa wax na Amadou Ba premier tour lay gagné élection yi ma ngi njiitëram Macky Sall fa dajee ak ñoom na leen dem leen ngeen jàppale ko def bloc ca Nioro ak ca Kaolack ndangaan gp yéen a kaay na ko Kaolack goo ngay wax nag Pape Demba bi tey ma koy wàccee de fay xamal ay karawaan porte à dem ci askan wi waaye yéen a kaay bi ne neexu ba neexut Nioro la fa am kenn xamu nu ci mbooloo informateur yéen a kaay ne Amadou Ba fañ koo teeru ca Saalum ni démb teeru bu mag exclusif yéen a kaay dëggal ko na Saalum a a Souleymane Ndeena Ndiaye moom it nee na Amadou Ba lay jàppale leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne caravane jomaay président ak Ousmane Sonko def neen diiwaanu Kolda lu kenn mësta gis mbooloo mu bëri ba tuuru bay rembat fa ngay foog na ay njéeréer lañ bopp yu ñuul kuk xàllab nit ñoo génn Kolda teeru jomaay ak Ousmane sonk ànd ak moom di dem foo ko natt rek weesu na ko Ousmane Sonko ne leen xam nga lan moo wuutale mbooloo mu topp Pastef jomaay fay ak mbooloom amadu Ba mi mooy ne amadu Ba diiwaan bu mu dem responsable fa ñuy dem ci dëkk àll yi département ba duy fa ay kaar ak i bus xenu nit ñi fay leen jox leen ay yére ak i waaye yéen fii ma nekk Kolda amul benn kaaru njaganjaay bu fi taxaw amul kenn kuñ jox tiset wala kuñ fay neexal la dugal la oto andi la déedéet góor jigéen mag ak ndaw ñëpp a génn ndax cofeel bu ñu am si ñun ak yaakaar kon ñun suñ mbooloo mi kenn waru koo tëkkale bu Amadou Ba ba tax yor yor yéen a kaay yi na ko wàccee ngeen fulaadu daal xam naa ne Bassirou Diomaye Faye Vox Populi nee na moom itamit fa attaqué Amadou Ba Diomaye Faye fa wax Amadou Ba na ko def naa fukki at ak juróom impôt domaine waaye sama loxo fa set wecc sàcc ma fa benn dërëm comme sama mag ji Ousmane Sonko nam fa nekkee woon rek sàccuñ benn dërëm waaye yow Amadou Ba moom am foo ko jëlee te faa ak yow deuxième de déedéet premier tour fañ lay mbuqi nga fari neew te ñun mbooloo mi ñu topp fayuñ kenn benn dërëm ngir mu ànd ak ñun Amadou Ba mel ni ku daan ko pare nga yaag sa waaji Ousmane Sonko xam nga faa leen xamal leen yéen ni ngeen defee politique saaga fitna xamul benn njëriñ ñun nekkuñ ci loolu les si ko a ne ah candidat yaa ngay attaqué wante de ku song sa morom rek mu fayeeku ci ay kàddu waaye attaqué wante bi nag diggante Amadou du Sénégal ku nekk nag ak na muy digee source ay yéen a kaay na ko faalee ñaan ngir yàlla may moom ma wax sénégalais yi ñenn ci candidat yi liñ diggagum askan wi yaaw seetal Idrissa Seck fa wax waa Kër saari na leen su ma faloo ngeen tàqali ko ak mbënd ndox mi wala ngaan ci nawet bi wal fajir yéen a kaay na ko Déthié Fall tamit loolu la dig banlieue bi source a ne Bassirou Diomaye Faye moom lim dig askan wi mooy suñ ko falee président du leen rusloo te fay jubal réew mi jubbanti ko Aly Ngouille Ndiaye moom fa digee wàllu dund gu doy ci réew mi amul jéggaani Khalifa Sall moom fa ne xam ngeen fa ñuy wax ne Fuuta fa tàmpi pakaaw moom fa ñoo dee ñoom bun Abdallah Jonn nee na buñ ko falee suñ contrat gaz bi ak mboolem koom gu nekk ci suñ suuf si fañ koy xoolaat Aliou Mamadou Dia bu pur fa wax na Tambacounda ak Kédougou ñooy diiwaan yu gën sonn ci réew mi te loolu jaaduwut Pape Djibril Fall fa wax na ñoom sàccuñ daraay réew mi le peuple yéen a kaay ne Anta Babacar Ngom moom ma ngay wax fukki solution yi nga xam ne moom la bëgg a andi ci saafara jafe-jafe askan a kaay ne engagement ngir yaakaaru ndaw ñi ak soxna mu ko l'évidence yéen a kaay ne Déthié Fall campagne bi le kaay ne Serigne Mboup moom fa sàkku ñu amal débat candidat yëpp toog ci télévision bi ak rajo yi ñu wax ak sénégalais yi 24 heures yéen kaay na ko Mamadou Lamine Diallo moom d'accord na ci débat waxtaan waaye wàllu industrialisation ci la bëgg amal ko ñay xamal seen campagne nag fi toll nii mooy secteur privé bi info yéen a kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'évidence yéen kaay mooy ne Ousmane Noël Dieng fa dugg attaqué nekkee te ngeen wàcc ci terrain bi campagne dem wax ak askan wi ngir Amadou Ba mën a am ndam mais li ngeen di def ni baaxul santul yàlla te faa ko ñaawlu yéen bi ne kàddu yi ni ko yëkkati bi muy amal démbu ab karawaan ca biir Kaolack ndangaan moom njiital mouvement MJK fa faa wane dooleem leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne fitna bi am ci campagne bi wax dëgg yàlla baaxul te fañ ko war a bàyyi ndax fa am ñu ciy loru l'observateur fa am ko fay nettali ne ko sox leen ko ci campagne bi loolu baaxul gendarmerie nationale nag yor kaaraange waa PUR yi ñu dindi seen mbaxana yi nga xam ne comme mbaxana soldaaru Sénégal yi la ndax ñoom duñu ay soldaar leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja moo ne njiitaram Macky defal na lu neex journaliste yi këru taskatu xibaar yi ci Sénégal journaliste yi fa yoreel bor état bi lu toll ci ñeen fukki milliards njiitaram Macky Sall nag fa leen na dalal démb ba pare na leen léegi baal naa leen ñeen fukki milliards yi dootu leen ko fayeti ay waay ndaw sàmba xanaa loolu ay redevance patron de presse yi kay waxatuñ dara l'observateur moom fa xëy dalal ay soxna yu jigéen yoo xam ne ay jullit leen te ñoom fa ñuy muuru am na ñu ciy wax ibaadu am na ñoo xam ne duñ ay ibaadu sax waaye fa ñuy muuru rek yéen kaay bi ne nag mooy ñoom xale yu jigéen yooyu lenn ci askanu ni leen di xoolee du bët bu rafet fa ñuy liggéeyee tamit fa ñuy ñaawlu ñaareel seen muuraay gi ay ñii fa ñoo saytaaneek fa ñuy jéem a jaxase yàlla kii ibaadu laak fañ hmm, a waxuma laak nag sol yére yu bon ba sa jëmm ji yaram wi nekk ci biti nga foog na yaa ci nekk déedéet faa leen di xamal leen gis ngeen xale bu jigéen su muuroo wallaay fay rafet fay jekk te fa lay jox cër xale yu góor yi kenn du la ci ñemee oo naan la faala nobak muuraay gi fa lay aar ñàkk muur gi moom xam ngeen lu muy jur